familles qui se sont mm-hmm. appropriées les réseaux sociaux pendant que les médecins mm-hmm. pendant que les avocats pendant que les hommes politiques ah dañuy cof de temps en temps ñu laa cof rek ne amuñu jot bi mm-hmm. alors que c'est le moment que pour que les, les intellectuels s'approprient les réseaux sociaux su ko defee suñu approprier les réseaux sociaux dañ koy nettoyer parce que quelqu'un comme moi du ma wax musiba si réseaux sociaux damay éduquer si réseaux sociaux du ma saaga nday si réseaux sociaux xalaatuma ko sax gis naa là c'est là où je may attirer attention pour bu bu buñ la buy mer mer mer mer ba fayu def nga ko euh, sànq mm-hmm. def na la ferme cette parenthèse ferme cette parenthèse pour, pour les enfants il faut pas euh, parce que son saga à distance et ils sont dans les chambres ils vont écouter s'ils n'écoutent mm-hmm. pas ils ils provoquer provoquer ba ñu ba ñu tontu leen si seen si seen seen degré de bassesse seen degré de grossesse et d'insulte ça c'est pas les intellectuels n'insultent pas par contre il y a des d'autres formes d'autres formes de de réaction qui sont pires que les insultes quand je dis les chiens de Sonko Sago Malène mais c'est un dresseur de chien c'est pas une insulte c'est une réalité c'est un dresseur de chien qui aboie dans les réseaux sociaux tegaat leen mhm. vidéo bi. Mhm. ginnaaw Serigne Dakar a dit que parti politique bu nekk waru am ay xaj waru am ay xaj si réseaux sociaux yi. que xaj. la grosse dinaa ko dinaa ko monté tegal leen ko leen ko grand de Dakar dafa ne parti société yi. Mhm. parti politique yi waruñu am ay xaj si réseaux sociaux yi. ma ne kii da fekk si ma. dañoo am ay xaj yoo xam ne man de damaa bloqué. ba reposé wu dinaa lire quelques uns après ma filtre leen. parce que sooy wax di lire commentaire doo ah. avancé de. man dama gis que yow da ngay lire commentaire bi mu lay affecté ngay réagir de commentaire sinon dañ lay dañ lay dévier. disons dama effacé woon commentaire yi. waaye sama objectif mooy li ma bëgg a wax naka nit ki dégg naka nit ki dégg. absolument saaga ñuy saaga mooy ñi nga am bas niveau. on s'en fout ils sont. qui leur demande d'insulter ils n'ont qu'à insulter ba ba géej gi fer. su ko defee nit yi. dinañ xam mhm. ne ñiy saaga rek la nga xam ne dañuy def te dañuy fan. ay fankat lañu ay rambaaj lañu ay ay dresseur de chair lañu comme nañu saaga parce que loolu rek la ñu xam man seen saaga yi dama ko dul lire waaw par contre su ma demee ba tal le matin quand je me réveille quand je suis en pleine forme je tombe impérativement sur certains insultes que je filtre mais du ma nekk fi di di live di xool seen commentaire ah faalewu ma leen bat ma leen ba ñu ñu dam leen faalewul absolument léegi waa Sonko ñoom seen stratégie mooy mhm. saaga leen dugg leen si vie privée jàmbur su ko defee kooku day reculer alors que xamuñu soo ko defee nit ki nit ki da koy rendre service sax ndax da lay leeralal yi mu gën ko jox force mhm. mu gën ko jox force xeex bi gën a neex tey mhm. actuellement li ma attaqué Sonko tey ñoo ragaloon sa da nga doon ménage Sonko mais bu ma ko attaqué attaqué sa sax ku léegi ñëpp a ñeme Sonko kenn faaletu Sonko dañ ko démystifier carrément j'ai contribué à faire démystifier Sonko parce moi je fais partie des personnes qui croyaient que il n'était pas au courant mm -hmm. 2019 ak 2019 je pensais qu'il n'était pas au courant et qu'il est même derrière ces insultes derrière il est même derrière ces insultes dafa nekk nit ko xam dafa respecté wul jigéen comprendre dafa respecté wul mm-hmm. jigéen faalewul jigéen nu muy toroxalee mm-hmm. sa première femme délaissé ko mm-hmm. noonu lay toroxalee jigéenu ñi nekk dans les réseaux sociaux c'est quelqu'un qui fait de la violence faite aux femmes qui refuse d'admettre ah qui refuse de dire à ses militants à ses chiens et chiennes arrêtez d'insulter. dara jooju bu mu defee conférence de presse lan la wax je m'oppose à toute forme de violence a na wax sa bàyyi leen saaga a na wax bàyyi leen saaga je m'oppose à toute forme de violence physique ratatatat ma ne waxal wax ji les partisans mm-hmm. arrêtez d'insulter su ko waxoon ñu xam ne mm-hmm. kii il est de bonne foi mais il est de mauvaise foi dem na ba ne mm-hmm. insulte ak violence da koy gar ça veut dire que moom dans des dispositions il est d'accord pour nit ñi nit mun ngeen mun ngeen viol mm-hmm. loolu Sonko da ko wax ñëpp di ko dégg kon conférence de presse soo leen seetlee la dernière fois dernière sortie